waaw bokk internet yi ñu nuyuwaat leen gannaaw ndam loolu solo yi nga xam te ni Youssou am na ko ci kaw Boy Seye numéro 2 tey moom lañu seet si ñu ngi nii këram comme ni mu ko waxee sànq rek waaw mu doonoon combat bu am solo ci carrière am mu am ci ndam lu reuy daal ñëw bëré dicté li nga xamante moy lu am ki nga xamante moy bossé numéro 2 comme je je je l'ai dit tantôt euh, c'est un fils d'un champion le fils de Balla numéro 1 Youssou Ndour qui a fait parler sa puissance technique mais également sa technicité devant bossé numéro 2 le protégé de Balla numéro 2 mais aussi le protégé de l'Est numéro 2 le poulain de Lamine Golo aujourd'hui a fait preuve d'une prouesse technique incroyable avant tout mbër ñu bàyyi nga nuyoo rek daal di présenté wu waaw ginnaaw ma sant yàlla julli sant bi di sant wa Sira Baraag bu baax di sant waa Gunaas di sant ñu may jàppale ci combat bi ñepp ñu ma doon jàppale ci combat bi ñepp ma leen sant bu baax sama serigne yoon doon ma ñaanal ku ci nekk ma ngi lay sant bu baax baax baax di jéggal suñu wa koñ ndax bo ba tay amel na leen njukkal tamit tamit tooñ na leen ndax def na fi simbu def fi open press lepp ngir ñu bekk ta tay ndam lu leen indil xëy na trop mais ñoom tamit ñoom ci gëna a ndax lepp ñoom la waaw sant naa yàlla bu baax a baax a baax ab tey bi mu ñëwaatee toog suñu kër. waaw combat bi ay blessure rek laa ko bëriwaale ndax avant may am combat yow ñoon nga école ba fekk na ma ma amee problème ndigg ba mu jugee foofu ma béy fi si loxo tamit ma rëq lii rek dama rëq nii si loxo mais tey dama ko dama am ngor. tey su ma doon dee sax tey damay dem sax ngir sama jom waaw lépp lu ma mënti dal tey damay dem bëre ji pour yàlla ma ndam ma ñibbisi. Ah, ñu gis ne aussi boo amee la yàqal na ma lu bari ndax teewoon na may jëm salle musculation combat bi yëkkatiwuma si weñ waaw kombaa bi yëkkatiwuma si weñ ñoom Alioune Seye deux laa àndal sax fajar di ànd ñoom dem géej xamas su ma ñëwaatee mu jàpp ma bëtt ma di sant yàlla bu baax a baax comme que bëri naa jàmm salaam rek maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax waaw. waaw kooku ñun mbëru géej waaye mun ñun ñëpp mënuñu ko fay ndax lu ko dalee si combat ñoom fii sa bàll bi ñoom gàqu bi ba tey bàyyiwul chaque fajar barki Seydina wax mooy yëkkati téléphone am woo ma musuma ko woo na ko ba xam ne dem entraînement chaque fajar moom may woo na ma yuusu foo nekk man ko maa ngi damay taayal sax mais tamit champion du la woo nga gàntal waaw moo tax ma woowee damay jug dem di sant yàlla bu baax sama grand Balla gay 2 moom tamit jàpp na si bu baax a baax a baax les deux tamit ama fayam Elton waaw les ñoom ñëpp gisuma leen mais jàpp nañ si bu baax ndax ku si nekk yëkki na téléphone woo ma na ma yuusu li nga war a bëree at nii ma dégg seen conseil nag ndax ñu nekk samay grand ma nekk sama xale nekk si école bi di leen sant bu baax ñoom tamit ndax lépp ñoom la waaw. waaw sama ngëm-ngëm at ñu may jàppale rek sama ngëm-ngëm at ñi may jàppale foofu laa ko tegoon waaw ndax damay ànd ay xale guddee bëccëg ma jaral lu nekk ñoom tamit ñu ma ñoom tamit ñu jaral leen lu nekk ndax mbay Fall dafa bàyyi soxnaam di ma jàppale combat bi boobu ba tey xam nga tamit loolu dafa metti loolu sag la tamit man doomu gor laa ku ma jam ku ne faa moo fayu waaw moo tax lii rek laa ko mënoon fayee waaw. soo tey ñu ñëw ci combat xam ne liggéey nga kàr comme arbitre sifflé amul round d'observation ñu bëri na waaw man ku ma xam ku ne xam nañ man noonu laay bëree tey sax ñu ma calmé moo bari tey ñu ma calmé sama papa bi ma jurat Père Diaw paa yi nekkoon si làmb ji ñëpp su ma yëngoo ñu ma mbër teel loolu tamit daf may gën a yokk jom ndax man liggéeyu ma loo xam ne ñu si làmb ji ñëpp di ma faral xam nga tamit loolu daf may gën a yokk jom ma xam tamit fu ma jëm waaw. gis benn moment tamit a tànte a wetu nga nga tànte aussi nga daal di arrêté daal jëm dégluwaat sa ko bëggoon plaqué ndax après boo ma xoolee maa ngi jël suuf diw ko foofu pour mën ko plaqué mais dama xool tamit na lii comme que su ma ko forcé dana am sama combat yoo xam ne loolu moo ma loo force action moo tax mujj ma ko forcé ma def ko noonu waaw. mais ba ci kaw loolu tamit ci biir ci biir bëree bi aussi kit bi dafa jaaxal ñu bëri ndax adversaire bi corpulence bi mu yor mun nañ ne moo la surlees te volume bi mu yor dafa jaaxal ñu bëri anam bi nga ko daane est ce que mën nga revenir ci loolu waaw affaire noonu mën a demee ndax man ñu naa sax si Alioune na ko lépp yow la ndax su ma jeexee nii gars yi yaakaar amoo doole mais dama am doole ndax maa jeex si combat bi volume indiwuma comme ni ma daan mel dama ñëw indi doole doole laa daanee waaw moom tamit am na doole trop di nga ñaanal boo xamante combat ku bërital géejawaay yàlla na ko yàlla may ndam mais su nekkee waa géejawaay lay biral yàlla na ko waa géejawaay daanaat waaw. waaw mbër action bi mbot taf pour zongale ma dafa ma bëggoon zongale te man tamit ndaanaan laa mënuma zongale ndax ki kontaan ak ñoom Balla Gaye 2 ñoom Fils de ñoom Gackou 2 kenn mënu laa laa zongale waaw moo tax nag loolu laa indi indi sama ngëm-ngëm ak sama fulla ak sama fayda ñëw wane loolu waaw. waaw am na solo léegi am lu am solo ci kaw booy seen numéro deux nga jëm ña nga jàpp ne seen potentiel adversaire. Ah, ku bëre 15 combats kooku tamit am nañ kon làmb ji fu foo xam ne war nañ war nañ ma mën a may sens ama neex mu ngi si kaw di booba tey ngi bëgg combat na ñëw ñu bëre génn kay génn kay rek coins combat boobu ku si daan. soxla naa la man ndax jigéen daam lu ma ameloon war ma xaa fay ndax wax naa ko léegi léegi télé dëgës kenn demagul bàyyi sa morom bu ñu yaakaar ñoom dem nañ bàyyi ma fi ndax ñoom ñëpp kenn ëpp ma si combat kenn ëpp ma si victoire kenn dàq ma si bari kenn ëpp ma si fit xëy na heure moo amoon ma juum daanu waaw mais ba ma defarwaatee xam tamit mooy loolu yaa am gën a noonu Jokkel man moom combat la Jokkel man moom combat la yaa may dégg si moom mooy loolu yaa am gën a xam mais comme gars yi Tidiane Faye na ñoo ñu bëre fëg fëg la ñoo ñëpp la ñoo ñu bëre waaw. di comme lu ma lay wax rek comme li ma commencé gërëm naa sama waa famille bu baax. sama yaay waa famille yaay maa ngi leen sant ak sama fam papa ndax sonn nañ ci combat waa waalo waa jaaminaar kër kandour xam nga gërëm yoof yoof laay maa ngi gërëm sama gars yi may jàppale ñëpp ñëpp ñi xam ne sama combat bi boobu ba tey boobu ba tey nelawuñu ba combat bi commencé ba tey nelawuñu ñooy bokk di fanaan di yeewandoo yaa ngi dégg gërëm Samba Ndour Touba gërëm waa Tivaouane suñ seex maa ngi koy sant bu baax a baax waaw sàmm Ndour mënu ma ko fay ndax moom ñun mbëri waaye xale yi mu moo ñuy jàppale waaw di gërëm nag sama ñoom di jaay sama waa kër maam maa ngi leen bu baax ndax sama sama maam mbër moo yoroon mbëri moo tax ikir waalo am mi ci am moo tax di gërëm sama famille soxna waa Kolda maa ngi leen sant bu baax a baax di leen nuyu di leen jox seen waa ci di leen wax gis naa ñaan yëpp waaw gën gën a yokk ñaan ma dem ca kaw fóoree fa waaw bokk internet loolu moo doon kàddu yu am solo yi nga xamante ni le grand champion Youssou Ndour yëkkati na ko ginnaaw ndam lu am bi moom ci Boy Seye numéro 2 donc ñu waxtaan ak mom mu revenir ci aspect bu bari ci combat bi même aussi durant sa préparation comme blessure bi nga xam doon ko dégg mu confirmer ko euh xamal ñu ni loolu am na après mais lu ko dara ci préparation liggéey na ànd ci ñu war a àndal ba ñëw am ndam ci nga xam te mooy adversaire am euh buñ fa jugee tamit ñu daal di waxtaan ak moom ci nga xam te ne war na mën a bëreeg ñoom tudd na ku ci mel ni fëgale ku ci mel ni jokkal ak ñeneen ak ñeneen léegi daal moom ñu bàyyi rek promoteur yi après ñu xool parce que Youssou Ndour lance na un défi à l'endroit de ses potentiels adversaires euh, loolu moo doonoon suñu waxtaan ak moom donc di leen sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous prochaine également euh, di sant aussi suma technicien l' incontournable Bekay Koundoul